tey nag conférence de presse bi li ko waral du lenn ñëwuñu pour revendiquer ñëwuñu pour xuloo ñëwuñu pour xeex ñëwuñu pour dara dañoo ñëw rek pour informer pour def débriefing li nga xamante ne jot nañ ko liggéey depuis bu suba teel commencé ba fi mu toll. donc li ko waral point yi dañ koy commencé ci bilan suba teel parce que nit kat buy liggéey defe naa ni war na toll benn moment boo xam ne war na wax lan la jot a liggéey fan la commencé fan la départ ak fan la arrivé beneen point bi stop mooy gis ngeen fan yëpp am na ay artistes yoo xamante ni dooleeku nañ si biir suba teel donc mu indi coow si réew mi donc loolu tamit dinañ ci wax avec leur perspective aussi dernier point bi ñuy tëjee mooy perspective bu label bi mooy ci côté événement ci côté production côté collaboration lépp incha allahu rabi nañ ci wax donc dañuy commencer rek ci li nga xamante ne mooy bilan Soubatel en tant que directeur artiste artistique du label je rappelle et membre fondateur euh, Soubatel bientôt mu def trois ans am ci li nga xamante ne moom mooy musique bam maanaam côté Soubatel musique mais Soubatel suba teel bi nga xamante ni moom mooy suba teel bi nga xam moom la ñëpp xamoon agence yi Soubatel agence yi a fait beaucoup d'événements a fait beaucoup de choses depuis 2012 ba léegi donc def na ay Zénith def na ay Bercy tëgg na fi ay combat Bombardier Modou Lo def na fi ay concert fan zone depuis 2017 et tant d' autres choses yoo xam te ne jot na ko fi def donc loolu baax na pour ñu rappeler ko mais lépp solo aussi te waral tey teewaay bi fii mooy Subatel Musique ndey mbilli gi Subatel Musique ci bilan am defe naa jekk naa ci mën a wax ci bilan wu Subatel Musique parce que je suis le directeur artistique du label donc ci bilan dama ñëw si côté production pour les productions audio mooy production yi nga xamante ni artistes yi nekk suba Sobatel d'abord moo commencé si artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo signé papier sur blanc biir suba Sobatel ñu considéré comme des artistes de Sobatel musique ñu ngi koy commencé si euh, Sidi Sidi Diop mi ngi Sobatel artiste Sobatel la Bass artiste suba teel la Ibro Naajo artiste suba teel la Sidika artiste suba teel la The Best Family le groupe artiste suba teel lañ Ousmane Bongo artiste suba teel la Kamal artiste suba teel la ñooñu dañoo signé papier sur blanc contrat yi nga xamante ni moom la suba teel joxe donc ci bilan côté production audio ñun depuis notre naissance bi ñu commencé def production audio on a fait vingt neuf audio maanaam vingt neuf singles yoo xam te ni génne nañ ko côté distribution musicale si YouTube ak côté streaming dans les plateformes internationales on a fait vingt neuf audio donc côté production en vidéoclip aussi on a fait quarante six vidéoclip quarante six vidéoclip yi aussi euh, génn nañ ko ci plateforme bi nga xam te ne mooy plateforme suba teel Music c'est à vérifier aussi donc euh, si quarante six vidéo yooyu noonu am na si vidéo yoo xam te ne ay vidéo The Best Family la la yu nekkoon ci chaîne The Best Family donc yooyu tamit c'est à donc buñ ko xoolee yëpp au total am nañ 46 vidéos yoo xam te suba teel produire na ko ak 29 audios yoo xam te génnee na ko durant sa naissance. ñu ñëw ci côté streaming yi au niveau de distribution musicale on est en collaboration avec un label de distribution musicale bu ñuy woowee Believe Africa donc mu ngi basé wu France depuis notre naissance distribution musicale ci moo xam ci Deezer ci iTunes. ci plateforme yëpp plus de cent trente quatre plateformes donc on travaille avec Believe donc mooy la distribution musicale suba euh, Subatel Musique te alhamdulilah on a fait pas mal de streaming on a fait des millions de streaming donc à peu près euh, ci côté view nga xamante ni view yoo xamante ni euh, streaming nañ ko si suñu chaîne boo xoolee si liñ jot a liggéey ak léegi ñu ngi si quarante millions cinq cent cinquante quatre mille cinquante quatre je répète, on a fait 43 millions 554 cinquante 54 vues ci production 29 vidéos ak des audios sans autant compter tamit euh, performance live yi nga xam te ni parfois yu Sidi Diop yu Bass Thioung yu Ibro Nadio yi nga xam te dañ ko ciy dugal donc si bilan tamit ba tey mu ngi si bilan ma defaat benn récapitulation bu ndaw pour les productions en audio on a fait 29 audios pour les vidéos on a fait 46 vidéoclips pour les streaming sur YouTube on a fait 43 millions et poussière de vues concert yi nga xamante ne des grands concerts parce que des grands concerts mooy concerts yi ngay financer des millions pour des grands concerts yi nga xamante ne teel moo ko tëggal boppam financé ko tëgg ko ay artistes moo xam Bass Thioung la moo xam Ibro Nadio moo xam whatever ñu nekk ci label bi on a fait douze grands concerts depuis notre naissance yoo xamante ne ay concerts yu ñu financé des millions la concert de prestation yi nga xamante ne nag dañoo ñëw fay suba teel des millions ni ko sa artiste bi lañ soxla wala collaboration bi lañ soxla wala lii ak lii nga tëggal ñu fii ak fii on a fait plus de quarante six concerts grands concerts durant notre naissance concert de fan zone aussi on a on en a fait def nañ concert fan zone bi passé gis ngeen suba teel taxawaay bi mu ci def on a fait beaucoup de concerts ci rond-point Yoff bi def nañ concert aussi ci monument de la renaissance donc aussi Euh, kenn umpalewul aussi que naissance su euh, suba teel dafa tombé loon nag li nga xamante ni mooy Covid donc bi mu tombee Covid def naa bi suba teel juddoo amoon nañ ay contrat yu bëri yu ñu waroon def mais mujjuñu mujjuta mujjutu mujjuñu ko def parce que Covid bi dañoo tëjoon porte yëpp tëjoon dëkk yu bëri léegi nii sax lañ ko commencé ubbi ba deux mille vingt et un bi suba teel di gën a cartonné sax. instant boobu noonu on avait beaucoup de contrats fin faire mais Covid bi moo tax mujj ñu ko def te tey concert yooyu noonu international yooyu noonu am na yu si jot a comme tey euh, on a fait des tournées te li ëpp solo aussi on a représenté dignement notre pays dans des festivals en commençant le e wa di festival boo xam te ni organisé par Gaaw Production bu Asalfo Magisystem en Côte d'Ivoire on a participé dans ce festival ah. Euh, avec euh, Pape Diouf avec euh, Sidi Diop avec Bastiung avec ki nga xamante ne mooy Ibro Naajo donc équipe bu suba teel bi aussi demoon nañ participer si li nga xamante ne moom mooy festival boobu mu nekkoon Côte ba tey ci festival on a participé si beneen festival Rio Loco boo xam te ne Toulouse lay am France donc nous étions des invités parce que l'année prochaine incha allah rabbi suba teel moom mooy nekk label bi nga xamante ne moo fay dem jouer festival boobu donc comme l'année prochaine incha allah ñoo war a jouer festival boobu moo tax ñu invité woon ñu moo tax ñu yabaloon yenn artistes yi ñu dem ku si mel ni Sidi Ka naajoo Naajo di Diop ñu jotoon dem donc euh, si festival ba tey ma defaat récapitulation si Rio Loco Femua ak festival Denver festival de Denver tout récemment la donc Subatel a été invité aussi donc on a participé même lu lu lu mu jafe-jafe pas mal de festival yoo xam te ni Subatel participer na si pour représenter Sénégal dignement donc aussi Bastoung a fait des tournées donc dem na fi France def tournée ñëwaat defaat na beneen tournée boo xam te ni France la dem na Italie comme des villes comme Brescia def na Rimini def na Torino jóge fa dem Stockholm Suède aussi def na fa Sidi Diop aussi même chose participer na ah à une tournée en France donc euh, ci côté tournée internationale loolu la ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy dates yi dates yi par exemple yi nga xamante ni c'est des dates on peut dire des dates charnières du label mooy Sidi Diop tëggal nañ ko Iba Mar Diop mu nekkoon concert boo xamante ni concert bu marqué label bi la donc date charnière la Bass Thioung tëggal nañ ko Grand Théâtre mu am réussite bu énorme date charnière la The Best Family tëgg na leen Magic Land mu nekk réussite date charnière la Ibro Naajo aussi ah dem na fi nga xam te ne moom mooy akapes aussi gis ngeen ko date charnière la donc ci côté li nga xamante ne moom mooy bilan bi loolu la ñu am ci côté bilan ñu dem si deuxième point bi parce que du ñu yàgg euh, les signataires am nañ ay signat ñoo xam te ni ay artistes yoo xam te ni ñu leen di dégg tout récemment ñu def signature ci biir label Subatel Musique loolu dama si ñëw tuuti Subatel label de musique la boo xamante ni dafay jàppale ay jeunes talents Subatel label de musique la boo xamante ni dafay xool talent te du dox ci suba Subatel label de musique la boo xamante ni dafa wane ay performance am te tegu ko ci clan donc ñun amul ma Samba amul ma Demba on est pour tout le monde pour tout les artistes artiste bu sentir sa bopp liggéey suba teel te suba teel sentir la tu es la tu es bienvenu donc moo xam artiste bu dëkk Koungheul ku dëkk Ziguinchor nekkuñu foofu artiste bu ndaw bu mag bu yam ñun talent la ñuy xool ak am feelingu liggéey ak yow pour signer la te suba teel ma rappelé benn affaire boo xam ne c'est très important pour ngeen xam ko pour Sénégal ak àdduna xam ko suba teel ak say artist loolu c'est à rappeler parce que suba teel musique tey da lay signer yow artiste bu signer ak yow tey 60 pour cent 60 pour cent yow artiste bi yaa ko moom label bi malgré. toutes les dépenses moom moo koy def boo def soirée ñooy ñooy ñooy fay répétition ñooy def com ñooy fay sécurité ñooy fay sonu ñooy def lépp te bu ñu paree 60 pour cent yow lañ koy jox sa prestation cachet bu mu mënti doon soo paree 60 pour cent yi yow lañ koy jox donc loolu c'est pas évident parce que ñun dafa am lu fi fekk am lu fi bëgg a jëlee am fu ñu ko bëgg a yóbbu muy artiste il faut que ñu koy mettre à l'aise d' abord artistes yi ñu yor ñu si mën a jox oto ñëpp jox leen oto jox leen dëkkuwaay yu baax te bëgguñu ñuy manqué dara pour ñu mën a am stabilité boo xam te nañu mën a liggéey seen liggéey correctement donc ñun li ñu yor xam nañ ko entreprise la entreprise buy génn xaalis da ko war a sàmm entreprise buy génn xaalis da ko war a topp da nga ci war a def li li nga xam te ne mooy li war si ñi lay liggéeyal mooy nga respecter ses employés te artistes yooyu ce sont des employés du label parce que ñoom ñooy dugal xaalis ci biir label bi donc li njëkk moo leen mettre dans des bonnes conditions si loolu on a Bambaly Seck laay commencé qui est un talent qui est un sénégalais malien il n'est pas guinéen les sénégalais nekk doomu ndaanaan donc tey defe naa ni bu ko Subatel signé war na ko signé parce que artiste bu nekkul ci benn label la artiste la boo xamante ne mi ngi góorgóorlu donc man mi di wax ak yéen ci man la commencé après Baba Amdi on a fait des des choses ensemble defe naa ne sax li tax sénégalais gën ko découvrir si man la commencé donc tey yàlla def ñu liggéey mu jaar sama loxo mu am fu mu toll te depuis boobu ba léegi aussi besewul les mu ngi continuer di liggéey liggéeyam ñu gis ni kii mi ngi góorgóorlu avec ses moyens moom rek te il seul donc ñu sentir ko am feeling am am ay objectif aussi yoo xamante ni dañ ko am parce que ñun on a des des projets yoo xamante ne international la te gis nañ talent bi mu am que bu ñu ko exploité côté boobu ça peut passer donc looloo waral ñu woo ko mu ñëw ñu signé ko ci label bi te signé bi ñu ko signéloo aussi pour liggéey kasa la amul leneen beneen artiste bi di Mandiaye Seck Mandiaye Seck aussi mu jaar ci man jaar samay loxo moom tamit nekk artiste boo xamante ni il est nekk artiste boo xamante ni aussi xam nañ ko je répète du guinéen du malien c'est un sénégalais donc nekk doomu ndaanaan nekk doomu Ousmane Seck aussi ñu xam ko gis ko muy góor góorlu moom tamit ñu woo ko am feelingu liggéey ak moom parce que soxla nañ talent am soxla nañ image aussi pour mën ko vendre au niveau international ak national ñu jël ko signé ko te signature bi jubluwuñ ci lu dul liggéey je répète donc ñaari signature yooyu noonu je confirme bel bien que ni signé nañ papier sur blanc Subatel Musique pour deux ans muy Bambaly Seck ak Mandiaye Seck désormais ils sont des artistes du label Subatel Musique ku leen soxla muy événement ak lu mu mënti doon ci artiste da ngay contacter le label Subatel Musique donc ñooñu mooy les signataires te am na aussi je répète su peu de temps d'autres grands artistes yu mag ñu dul présenter fenn di ngeen dégg ci kanam tuuti du yàgg que signé nañ ñoom tamit Subatel Musique waxuma sax benn waxuma ñaar d'autres nañ signé des grands noms la musique sénégalaise incha allahu rabbi du yàgg dara donc ñii yoon la ñu officialiser ko parce que dañoo toog signé ñee négocier nañ ba d'accord lu si des mooy signé donc pour répéter aussi on a besoin de faire voyager notre musique on a besoin d'avoir leneen lu bees parce que gars yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu naxante quoi am na loo xamante ne xëy na certes ñu mu intéressé wu duñ ko lijjanti mais ñun nous sommes des des des hommes de l'ombre nous sommes nous sommes des de des des des des ñoo xam ne dañuy dund musique kon donc ñun dañuy def ay recherche ci musique recherche yi ñuy def mooy Sénégal mi ngi arrière ci côté musique sous région bi y a des pays yoo xam te ni trois ans ci ginnaaw Sénégal mu leen rawoon léegi instant ñoo raw Sénégal je peux comme Guinée Guinée ces artistes ñoom festival yi ñuy def sénégalais duñ ko def donc tey dem na ba streaming yi ñuy def sénégalais duñ ko def donc Guinée sax raw nañu Gambie mi ngi ci tànk yi Mauritanie mu ngi ci tànk yi te fiñ ko jàpp buñ ko bàyyiwul ah gars yi day gën a voilà donc ñun ñu ngi xalaat loolu ñu ngi xool loolu donc comme Nigéria tey nu mu nekkee numéro un Afrique ba Tanzanie bi nga xamante ne Sénégal rawoon cinq ans ci ginnaaw ñëw positionné wu ci kanamu Nigéria di di di joŋanteeg wàcce Côte d'Ivoire bi nga xamante ni c'était le c'était ñoo nekkoon le king di coupé décalé tey ñu dindi musique boobu indi fi beneen musique non Sénégal defe naa ne nag on a les potentiels pour le faire te aussi pour le faire il faut que ñu liggéey te pour liggéey du wax rek parce que suba teel kenn xamewu leen wax c'est la première fois suba teel di woote conférence de presse wala di def point de presse te safe fait maintenant trois ans léegi mu ma trois ans li fi jot a jaar bëri na te jekkoon na si ñu wax. jekkoon na si kenn génn defe naan sa tet yi ñu ngi leen di soog a gis donc ñun li ñuy ñor encore une fois mooy liggéey amuñu leneen lu dul liggéey saagawuñu yabaluñ kuy saaga gaaruwaale wuñu lu ñuy def si musique lañ koy def suñuy information suñu lépp ci musique lañ koy jaarale te concurrence bi ñuy def bu seen la parce que musique la ñuy def je en voulant trop gagner parfois sax on risque de tout perdre ñun yàqamti wuñ dañ naan little by little the bird met his job ñun loolu la ñuy loolu la ñuy fait maanaam ñun dañuy liggéey molo molo di ko teg ci yoon te wax ji du bëri jëf ji mooy bëri artistes yi ñu gis nii ñëpp on a des projets avec côté international on a des aussi donc loolu moo nekkoon li nga xam te mooy les mooy mooy artistes si nga xam te ne ñoo signé si deuxième point bi léegi damay terminer pour bañ a yàggal ci perspective yi perspective yi ma rappelé aussi gars yi conférence de presse bi ñu woote woote wuñ ko ndax lenn lu dul ngeen xam ni la label suba Subatel Musique kat lii ak lii la fi def te c'est très important entreprise buy liggéey bu toogee ba tollu fenn mu wane li mu liggéey lan la parce que am na ñoo xam te ne intéressé wu leen mais li ñu war mooy ñu def ko moo tax ñu koy def mooy wax li label bi liggéey li label bi produire ci côté single ci côté clip ci côté événementiel ci côté concert ci côté tournée ci côté festival leeral ko ñu xam ni kat suba teel parce que am na ñoo xam ñu ngi jàppee suba teel benn label boo xamante ni dafa ñëw nii rek ah yor ay artistes am di génne di def nii non ñu newuñu foofu de sama gars yi ñun dañu am benn objectif bu ñu am ñun amatul lu ñuy prouver fii on a fait tous les tubes def nañ fi tube bu ne mais tey bu ñu doon nommé meilleur label du Sénégal ban label lañ koy jox le label le plus productif du Sénégal actuellement c'est qui c'est nous le meilleur label actuellement c'est nous gars yi ñu ngi koy wax loolu du kenn ku koy weddi parce que ay performance yu ñu def la yu ñu wane donc ñun amatuñ lu ñuy prouver biir Sénégal. parce que bu ñu fi defee tube tamit du safe parce que mënuñu fi def tube bu gën a xew tube yi ñu fi jot a def donc li ñu war essan bi nii mooy innover mooy yëkkati musique bi wut des collaborateurs internationaux yoo xam te nañ ci mën a liggéey ak ñoom donc ci perspective yi damay commencer ci concert yi nga xamante ni c'est déjà ficelé concert yi nga xam te ne c'est déjà ficelé ñu war ko def mu ngi commencé ci Ibro depuis boobu mi ngi liggéey mu ngi ci albumum mais dafa war a dem Grand Théâtre la date sera communiquée biento ñu ñëw aussi ci le groupe The Best Family incha allah après le màggal dañ def benn concert bu mag muy dernier dimanche

la date sera communiquée bientôt aussi artiste Subatel yëpp a àndandoo dem Zénith incha allah rabbi on a aussi des collaborations internationales tey ku mel ni Sidi Diop mi ngi ci ay collaboration international yoo xamante ne avec des Nigériens yoo xamante ne ñu ngi koy ficelé avec des américains aussi ñoo ngi si ça fait un an di ci dox te def naa lépp déjà mat na bientôt di ngeen am lu leen leer nañ si li nga xamante ne mooy projet yooyu Baschung aussi mu ngi ci ay featuring yoo xamante ni international la ku ne xam na ne Baschung mooy l'artiste bi nga xamante ni artiste bi nga xamante ni moo ëpp featuring ci année bi kon donc artiste buy dox la te tey boo doon def top cinq des artistes du Sénégal mënoo si génne les artistes de Subatel Musique yàlla def na ko du baaxu dara mais c'est des performances yoo xam ni ñun dañ ko wane te du chaque minute rek press bi kaay leen non non te bu ñu defee point de presse balaa ñoo defaat point de presse incha allah lu ko jar moo tax ñu koy def mais du c'est pas ay détails yu ndaw wala ay lii ak lii moo tax ñu koy def parce que li li fi jot a xew nii si ay coow gars yi di ko bës ñun yëngaluñu maanaam ñun ay ree la ñuy def dañuy toog suñu kër ay ree la ñuy def en fait parce que ñun newuñu foofu. yàlla xam na ni amuñu benn xolu kiñaan bu ñuy amal benn artiste amuñu benn xolu kiñaan bu ñuy amal kenn koo xam te suñu naataango suñu musique ñëpp lañu yéen a jàmm balaa nga ko doon xam ñi nga xamante ne foog nañ ni seeni ennemi lañ ñoom ñu ñëw bëgg a liggéey ak ñun la porte et grandement ouverte li ñu ñor liggéey la encore une fois ñu répété ko sénégalais yi newuñu fi pour faqasal kenn dañ fi nekk pour liggéey ku bëgg liggéey nga ñëw liggéey muy presse parce que mënuñu dem sans yéen mënuñu bouger mettre sans yéen yéenay fësal li nga xamante ne ñun moom lañuy def ko ñun amuñu seen fay presse bu ci bëgg a liggéey suba teel ñëwal ñu liggéey dekk ko si day norme norme yu positif artiste bu si bëgg a liggéey producteur scénariste réalisateur ko mënti doon moo nekkee acteur culturel suba teel ubbil na la ay portam on n'est pas réservé ku bëgg a liggéey sant sa bopp suba teel ñëwal nga jaar fi nga war a jaar bu suba teel amee feeling liggéey ak yow liggéey ak yow ba tey ci perspective yi lañ nekk ah après Zénith ci wax nañ ci collaboration yi nga xamante ni Sidi Diop ak Bass Thioung ñu ngi koy def avec des grands artistes nigériens ak des artistes américains on a aussi des événements yoo xam te ni la date sera communiquée bientôt aussi muy événement concours de chant ak concours de danse muy Subatel Talent Tour Subatel Talent Tour benn projet la boo xam te ni pour bientôt incha allahu rabbi nañ leen communiquer date yi commencé ko ci Dakar jëm si région Sénégal yëpp Subatel Talent Tour la tudd donc sur ce on a déjà des partenaires te yeneen partenaires yi nga xam te bëgg nañ ci liggéey wala presse mu mënti doon Sobatel ubbil na la portam pour nga ñëw ñu àndandoo ci ñu liggéey ci donc sur toujours su les perspective on a euh, Sidi Diop il doit sortir un album mi ngi liggéey depuis boobu daanaka sax pare na album bi pare na daanaka ñu ngi ciy liggéey xool fan lañ ko war a awalee côté distribution musicale côté promotion marketing et tout donc buñ ci tollee pour war ko génne aussi nous vous sollicitons yéen ñëpp. ngeen ñëw jàpp ci parce que tamit sénégalais la du guinéen du malien je répète kon yoon la ñu ñëpp ñu jàpp ci pour mu dem muy albumu Sidi Diop Bass Thioung aussi albumam pare na pare na depuis Bass ku ne xam na ne Bass Thioung depuis boobu ba léegi ngay dégg coowu Bass mu bokk ci top cinq des artistes les plus populaires au Sénégal Bass musul am album kon yàlla jàppale na ko ak liggéey boo xamante ne liggéey na ko ba am loolu donc Bastoung aussi day def sorti albumam pour bientôt la date sera communiquée The Best Family dañuy def seen album ñoom tamit incha allahu rabi sous peu de temps la date sera communiquée après le màggal Ibro aussi mi ngi studio di def album moom léegi mu pare moom tamit bëgg nañ mu génn album perspective yi toujours avec Bambali Seck on a prévu de sortir un single très bientôt Bambale Sek va sorti un single très bientôt. Mandiaye Sek va sortir un single très bientôt. On est dans les tournages du clip même avec Mandiaye. aussi Bambale aussi. Donc, euh, ce sont des perspectives. tey ci perspective yi damay tëjee que suba teel li mu bëgg a def lenn rek la moo jëlee musique gu Sénégal fii yóbbu ko fee te yàlla def na ni depuis loolu dañuy remercier de passage le PDG du label muy Matar Diop ak Mohamed Fall qui est des affaires étrangères du label ñoom depuis boobu ñu ngi tukki di ñëw ñu ngi dem États-Unis dem nañ France te dem yooyu yëpp lijjanti loolu la collaboration yooyu noonu te am nañ ko alhamdulilah sous peu de temps di ngeen gis suba teel wala ngeen dégg ko ci yeneen niveau parce que loolu lañ bëgg loolu suñu objectif te loolu la ñuy ñaan encore une fois ma tëjaat que ni suba teel new fi pour concurrencer ak benn label new fi di concurrence ak benn artiste santuñu benn artiste buy concurrence concurrence bi ñuy def suba teel mooy concurrence bu saine mooy concurrence bu positive encore une fois saagaloowuñ kenn ci internet wuñ kenn lenn parce que suba teel li mu bëgg a lijjanti mu ngi koy lijjanti lu mu bëgg def dina ko defal boppam kon soxla wuñu ku ñu saagaal soxla soxlawuñ ku ñu xaseel ku ñëw nag pour jàppale Subatel la porte est ouverte tëjaluñ kenn suñu porte moo xam ku mu mënti doon kuy acteur culturel sant sa bopp Subatel tu es tu es tu es le bienvenu donc c'était ça ah en rappel on a parlé sur sur le bilan de Subatel Musique avec le nombre d'audios ah 29 audios yi ñu jot a si année bi 46 vidéo clip yi ñu jot a génne on a parlé aussi de des des des streaming xam nga yi nga xamante ne on a fait plus de 43 de streaming on a euh, de douze grands concerts ne jot nañ ko def ak prestation grand concert 46 on a des fan zones tout récemment tournées internationaux yi nga xam te ne def nañ ko on a participé dans des festivals comme FEMIWA en Côte d'Ivoire à l'aide de Asalfo et Gao Production je répète aussi il est en collaboration avec le France festival de Denver USA donc Bass Thioung a fait Euh, énuméré nañ ko ci li nga xam ni moom mooy day date charnière Sidi Diop Iba Mar donc Bastion Grand Théâtre Ibro Nadio AKPS Best Family Magic Land tournée internationale yi nga xam ne Bass def na ko fi nga xam te ne mooy France Italie Suède les artistes du label aussi on a énuméré ça donc Bambali Seck Emma Ndiaye bi nga xam te moo rejoindre équipe bi y aura aussi d'autres grands artistes ma répété waat ko yoo xam su peu de temps di ngeen dégg seen tour ñu signé suba teel perspective yi tamit énuméré nañ ko si li nga xam te mooy hivernage bi war a dem grand théâtre concert The Best Family Malibu incha allah après le Magal concert Sidika à Thiès Subatel musique à euh, Zénith war a dem Zénith collaboration internationale yi ñu war def mooy featuring yi Sidi Diop Bastion donc des événements de concours de chant comme euh, Subatel Talent Tour yu ñu war a def les albums de Sidi à venir album donc di leen sant di leen gërëm donc